asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 13 mars 2020 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi moo xam sunu làmb la war a journal record bu dee yëglikaay bi di sunu làmb la moom la mu xëy ñëwati rek mooy coow li nga xam ne ni fi mu nekk nii moo ubale làmb ji muy diggante Alioune Sarr wala waa CNC bi bokk ak ñi nga xam ne ñoo di arbitre yi mu mel ni ki nag yëglikaay bi tey Alioune Sarr la xëy wane ci xëtam mu njëkk mu nga taxaw nag di dox Alioune Sarr nag yëglikaay bi ne ñi nga xam ne ni day fi mu nekk ni mooy askanu làmb wala sénégalais yi ñenn ñi moom weddi nañ ko ñii la mu bindoon dindi nañ ko sànni ñenn mu mel ni ki daal fi mu nekk ni moom kenn may ko fu mu yekk ak nàkkam rawatina nag ci mesure yi nga xam ne jël nañ ko ko jëmale ko ci arbitre yi maanaam raje kii dàq ña ca des mel ni ki coow loolu mu nekk nii moo ko topp moo tax yëglikaay bi laaj ndax Alioune Sall da wala boobu Alioune Sarr dana dellu ginnaaw ci lii nga xam ne ni moom la jël comme décision coow laa ngi mel ni tulli ak màlle ka nga xam ne moo di Alioune Sow moom mu nga cay wax ne na fi mu nekk nii daal lamb ji fi mu nekk nii day warta nekk ci mbirum kenn nit koo xam ne daal moo cay réfléchir wala boog moo cay xalaat ne na loolu moom mënta ne Cheikh mu mi fi ji doon amateur yi moom la mu gis daal ne na li leer ba leer daal Alioune Sarr la jàpp ne moom fi nekk nii warta nangu sax jël image di ko tilimal ne na déedéet waruta nangu fi mu nekk nii loolu daanam daal dafa war a setal deram wecc moo gën a wóor lii nga xam ne nii moom la nekk fan yi mu nekk nii mu mel ni ki ku nar a tilimal deram la koy jàppe ki nga xam ne moo di aadama bopp moom nee na la muy proposé moom li leer ba leer lenn dong la pétition daal la bëgg a def boo xam ne nii dañ koy signé ngir départu Alioune Sarr bàyyi làmb ji mu mel ni ki coow loolu ba tey mu ngi continuer de yëglikaay bi tamit xëy na def ci ab ab li nga xam ne nii moo di ab laaj wala boog jëmale ko ci ñi nga xam ne ni ñoo di presse bi mu mel ni ki daal mesures yi ñu jël muy dàq bi yi moom mesure la boo xam ne ni daal bu impopulaire la boo xam ne daal kenn àndu ca Cheikh Sène bi ab journaliste wax na ca nee na moom daal injustice total la gis Basirou Jawar tamit ab journaliste la moom ne na d'accordul ci li nga xam ne nii moo di radiation à vie bu Sitor Ndour ka nga xam ne moo di dabasis tamit di ab journaliste moom tamit daal ne na Matar Ba mii ministre bi nag moo ci war a jóg taxaw ci ndax lii warta jaar Abdoulaye Bey ab chauffeur la moom tamit maam daal la mu xam ne daal li na seen seet nañu gracier ki nga xam ne moo di Sitor Ndour mu mel ni ki daal fi mu nekk nii moom ñu baree baree bari wax nañ ci mbir moomu mu mel na ku ànd bi nga xam ne ni moom la fas yéene dàq arbitre bi wala boog ñu dàq leen ko waaye dañuy continuer dem ci la ba ne ci yëglikaay bi mu ngi ñuy xamal ne ki nga xam ne daal moo ne Ama Baldé moom ab dalwaayam léegi benn baraak la Ama daal fi mu nekk nii moom ngir daan Modou pour le 26 juillet moom mu nga fa nga xam ne nii moo di benn baraak dafa préparé boppam ka ko fa dalal nag moo di ki nga xam ne nii moo di Malaw Seras mel ni kon Ama daal fan yii moom foofa la dëkk wala boog. fa la taxu di waajal boppam waaye làmb ja nga xam ne ni ca la nekk war koo bëri moom Ama Baldé daa mel ni nag làmb jooju fi mu nekk nii wala làmb yi ci boppam moo am ay jafe-jafe yoo xam ne daal doy na waar record xëy wax ñu ko war na tafaatin moo xam ne daal année blanche ya teg leen toon te mu ngi jëmaat ci beneen boo xam ne mu ngi koy yor mel ni kon daal lam ji fi mu nekk nii moom jafe-jafe yi ko wër mu ngi ko bëgg a gagné yëglikaay bi rapport xëy tey ñëw wax nu ko keneen koo xam ne moom ab promoteur la di Pape Abdou Fall moom nag lambu ja mu tëgg dox ci diggante Siteu ak Papa Sow mu mel ni kii nag yëglikaay bi di rapport daal ci xale mi adundu ñu ngi ñuy xam ne li leer ba leer daal benn combat ñaari télé ndax nag signé na ak ITV signé na ak 2STV moo tax mu wan ñu ko ci aw photo mook Alaaji Jaaj ak Mamadou Ibra Kane ya nga xam ne ni ñoo jiite këri télé yooyu nga xam ne ni mooy ITV ak li nga xam ne ni moom moo di 2STV mu mel ni ki ba tey ci yëglikaay boobu nga xam ne moo di record fekk nañ fa ki nga xam ne moo di Grand Mbagnick wala Kalmu Ndour moom nag ña mu bëgg a bëreel daal lay wax ka ca jëkk nee na Bébé Saloum la bëgg wala kéwél mala ki nga xam ne ni daal moo di sunjata ne na ñii daal ñoo ko teree nelaw Grand Mbagnick moo xëy tey di wax loolu ci yëglikaay boobu nga xam ne moo di record bu nu delloo fa nga xam ne nii nag moom moo di ci yëglikaay nga xam ne moo di sunu làmb mbay ñing di kot su bawal mbooloo moom ci diggante soq ak gàmmu géey ñëw na di ca wax ne leer ba leer kii nga xam ne moo di gàmmu géey côté technique bi moom la ko jox waaye côté force bi moom ka nga xam ne nii moo di soq la ko jox moom mbay ñing moo xëy tey ñëw di wax loolu beneen combat boo xam ne nii moom Babacar Dione moo koy décortiquer muy diggante Bébé Diène ak Fourrière bi nga xam ne nii day boobu combat ci samedi ji la nar a am combat boobu nag yëglikaay bi ñëw na ca ak ka koy décortiquer waaye li leer ba leeral muy càmm production ak Baba Diaw dimanche la ñuy waaj soq ak gàmmu géey waaye samedi jo itam yëglikaay bi xam ne day Assane Ndiaye mooy njëkk a waaj ci diggante Bébé Diène ak Fourrière mu mel ni ki nag Assane Ndiaye moom moom waaj jamono a waaj narta yomb ndax nag dina daal li leer ba leer moom jàpp na ne nga xam ne ni moom la gis fan yii muy lamb ji bu commencé maanaam ñi wër géew bi bari lool rawatina ni ñu jàpp ne ay site internet lañ Assane ne na lambam ji moom du ci am te lamb yi nga xam ne nii moom la fa yéene dëgg ci kanamam loolu dootu ci am ña muy joxe accréditation xam na leen te bu bés ba jotee da koy jox ñu ñëw couvrir waaye sa mbax loo moom Assane ne na du ko defati tey suba waxi noppi Assane Ndiaye moo wax loolu keneen koo xam ne nii moom te presse booba ñu wax ca la bokk wala mu ciy liggéey di ab journaliste di Fatma Dia nekkoon info réew mi nag xamal nañu ne day moom nag nekkatul foofa mu nga nag toog jàpp boppam di xaar donte ay proposition mu ngay ñëw daal waaye mu ngay xool fu gën a baax ngir mu tànn fa dem fa moom Fatma Dia keneen koo xam ne ni moom lem infatigable mën nañ ko koo tudde muy xaarim anta sec yëglikaay bi xëy ñëw ci moom mel ni ki daal moom làmb daal jàpp na ne moom ci la war a nag defee li nga xam ne moo di carrière am wala nekk ci dara ëllëg rawatina nag mbirum promoteur mu nekk xale boo xam ne daal yëglikaay bi nag sawar na te itam mu ngay jàppale promoteur yi ci lépp lu xam ne ni dugg nañ ca ci yenn combat yi di leen ko fësal leen ak itam di leen jàppale ci seen ay journée di leen boole xale yi nga xam ne ni day boo leen tëggee mel ni kon kooku mooy Xadim Anta Seck waaye yàgg maar tey la ajjuma di bés bu sell yàgg nañu ñaan ci yàlla ak yeneen tam bu tedd ba di Moustapha sallallahu alayhi wa sallam coronavirus bi nga xam ne moo wërngal àddina bi fi mu nekk nii jaaxal ñëpp yàlla na ko yàlla wëral te itam nag liñ ñu wax moo xam ñi ne ci lislaam ji la wala ñu ca këru këru chrétien ya ku mu ci mën a doon lañ la digal ci set nga di ko def ndax nag set laata coronavirus di ñëw l'islam digle na ko diine christianisme digle na ko kon defe naa yàlla sax balaa nga koy jaamu faw nga set yàgg maar li ngay sol bu setul doo ko bëgg sol soo yaram sax bu setul da ngay diis kon set moo ëmb lépp waaye feebar moom ci àddina la nekk te ba ba ñuy dee àddina jeex du fi jóg waaye lu ñëw yàlla nañu yàlla wan saafara sax loolu moo gën a wóor salaamaaleykum mbokk yi suivre Leewtoo TV ñu leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal comme chaque jour rek ànd ak yéen si revue de l'arène bi may nuyu sama mag sama xarit Babacar nuyu naa la. maa ngi lay sa Aïssatou Faye ah sama rakk sama xarit comme ni nga ko waxee maa ngi lay nuyu di leen ziar bu baax a baax si àdduna ji. Babacar ginnaaw bi nga defee revue ba pare ñu jublu si li nga xam ne mooy jàngat bi hmm. daal di ñëw tamit suñu lom tey ba léegi nekk si coow bi dox diggante. arbitre ak CNG ñu daal di ñëw nag jël ay ñi nga xam ne xam nañ leen ci làmb ku si mel ñoom Cheikh Sarr ñoom aadama Bopp ak ñeneen laaj leen seen xalaat si li nga xam ne ni mooy coow li ak li nga xam ne mooy doxalin Alioune Sarr waaw mu mel ni ki daal fi mu nekk nii loolu moom moo ubbale làmb ji bu coronavirus ubbalee àddina bi itam waaye li nga xam ne moo di dàqum arbitre yi moom mm. làmb ji moom moo ko ubbale actuellement mu ne wax na muy Adama Bopp nekkoon ancien président des amateurs mm. ak ki euh, li ñu wax nag dafa mel ni kàddu gi benn la maanaam daal décision bu mel nii les kenn àndul maanaam dàq ay arbitre à vie yu mel ni ki noonu ak i aja ay ati at mu mel ni ki ñoom ñëpp ñoo bokk xalaat bi que ni dogal bii jóg nag moom la kenn àndu dogal nag soo ko jëlee Aïssatou Faye kenn àndu ba nga jël yaa ngi dégg nit nag du question que ni dama naan li ma wax bu ci ñëpp àndul rek tudd dara moom laay continuer di ko wax non non non des fois bu la nit ñi ne bu la nit ñi contesté contestation bi bëri da ngay taxaw nga xoolaat yow parce que nit matul kenn matul yaa ngi dégg yàlla suñu borom bi rek rek rek moo mat à part moom matloowul kenn kon kenn ku mën a doon nag looy def lu ne Aysatu Fay sa doom yi la yàlla may sax boo jëlee ci ñoom décision ñoom ñëpp ñu ne la taxawal toogal nga déglu leen donte yaay seen waajur rawatina nag njaboot goo xam ne nii ay mag yàlla jëm lañu nekk ay borom xam-xam nekk ay responsable kon yaakaar naa ñun boo jëlee ci basta basta dalal dalal defe naa dal ki xalaataat am na ci solo. waaw Babacar ba tey arbitre bi ñoom si ñu ne biir coow dañ doon wax ay. augmentation honoraire ki demee noonu waaye tey nag ak fi coow li toll yokk nañ seen i laaj lañ doon laaj dolli nañ ci tey ji ay poñ bëgg nañ tey li ñuy laaj mu nekk pour arbitre yépp que mu nekk arbitre Dakar arbitre Tamba arbitre Kolda fu arbitre mën a nekk rek ñoom liñ privilège ñu bëgg loolu lañ bëggal arbitre yépp bëgg tamit formation boo xam ne CNG dinañ ciy jàppale pour ñu doon ay arbitre euh, lutte olympique ak yeneen ak yeneen daal. maanaam discipline yi am ci làmb yépp wala bépp bépp formalité bu ne ñu nekk ci ay arbitre. Mhm. bëgg nañ ñu jàppale leen ci la ca des mooy lañ doon laaj muy wàllum assurance ak seen lañ leen di fay honoraire ya fi ne nii dañ caa yokk yeneen di poñ te tamit yokk yemale guñ ko ci Dakar département ak région ak réew yooyu fépp nga ca mhm. waaw loolu moo lay wan ne ñoom waxuñu ngir seen intérêt kenn wala ñaar mais dañuy wax ngir intérêt général nit nag soo demee bay wax da ngay wax ngir intérêt général parce que mooy tax la ngay wax ñu mën laa déglu boo xoolee tey soutien bi leen sénégalais yi amal nii jàppale leen dafa mel ni kon foofu ñu waxee moo tax nit ñi di leen jàppale jàpp ni lii ñu wax lu jaaru la kon nag yaakaar naa daal li am solo mooy ñañ ko seqal muy seen i kilifa nañ leen déglu ñu toogaat waxtaan ndax olof ne na bu ndox an bu ndox tuuru an baax a fa des ñu ne déedéet dañuy rootiwaat kon root passé gul nañu rootiwaat mooy lan mooy ñu woote waxtaan ndax dara passé gul pour waaw waaw ka démb record ñëw na ak ki nga xam ne ni mooy Modou Lo tey suñu lamb xëy ak ki nga xam ne tamit mooy Ama Baldé bu nit ñi dinaan saison blanche Modou Lo day ñàkkal xorom lamb Ama Baldé moom ma ngay préparé mu fële benn barak euh, kii di Malo Seras daal koy dalal nag fi seene ko fa de nëbb toog pour mu préparer li nga xam ne ni mooy combat am ak Modou muy def ba daan kii di Modou Lo Malo ak Ama de seen bande dafa nekk ci ànd yoo xam man dama ciy kontaan mm. xam nga ànd di ci neex mooy ànd bu mën a doon ndey kumba yow kii mën naan sax ndey kumba fa loolu mën a ñaar ah, la ñu xas a tàmm fan yi ah. li am solo mooy seenu ànd ñoom ñaar mm. yàlla man dama see kontaan li tax man dama si kontaan mooy jàpp naa ne ñu ngi ànd te yàlla tax ndax ay bu ñëw ba tuddante ay doom te maalaw parce que mën nañ ne làmb li tax mu wàññi bëri dafa mel ni ama moo tax su ama takkoo mu takku bu taxawee mu taxaw ba ba muy bëri ba ba wala leneen am ca mm. mu mel ni kon bu ko dalalee fa nga xam ne moo di benn baraak defe naa ne loolu moom ne maanaam du kenn mm. yaakaar naa ne itam ñoom kon jàpp nañ le 26 juillet daal dañuy bëri ak Modou Lo moo tax kon Ama mu nga foofa maalaw làq ko fa muy préparé wu waaw olof nag ne na ah euh, daas fanaanal ay sotu fay na am na loo xam ne day bette waaw uh-huh. moo gën a wóor te uh-huh. ah, la benn baraag waaye jaw sax dem ba ci géeju mani bi uh-huh. waaw maam nga ba tey ñu dem si beneen combat bu war a dox kii nga xam ne mooy Siteu ak euh, Papa Sow fu mu toll nii promoteur bi record ñoo di nga xamal ni dafa nekk ci diggante ñaari télé mm-hmm. ñaari télé yooyu nag Euh, am na ñu ci jot a laaj euh, kii di seen source si ITV nee na leen coow di lu mu bënti bëri bëri ñoom Pape Fall yëgaloon na leen tamit collaboration ak 2STV mais bu direct waree am rek ITV moo waaw loolu daal li ma ci xam mooy ñetti ñoom ñu nga tudd ñëpp ku ci ne responsable nga ca la nga nekk Pape Abdou Fall responsable la ci li mu nekk parce que ku ne xam ne ne am na lu mu nekk ci réew mi ba pare nekk tamit promoteuru làmb di liggéey leneen kon responsable lañ koy jàppe loolu la yàlla def Alaaji Ndiaye waxaale wuñ ko moom itam defe naa ku ne xam na kuy Alaaji Ndiaye 2STV defe naa ne kooku itam responsable la ma la di ko doxal di fay ay nit ay kon ñoom ku ci ne xam nga la sa morom muy def mais bu direct waree am bu dee kële moo ko moom ñu jox ko itam loolu yaakaar na ne wàññiwul dara parce que lépp Sénégal lay des promoteur bi fi dëkk télé yi fi dëkk kon daal lu mu mën a doon ci àddina Aïssatou Faye la ma la waxoon rek waxtaan mooy régler lépp waaye li daal mooy toog fële naan foog naa yaakaar naa ak dégg naa waykat ba nen mooy indi rus naa wax dama am kersa sax ah. yooyu wóorul li wóor mooy li xew ñi ko seq nañ ko waxtaanee mu rafet waaw ba baamka nañu jógee ñu daal di fay am ay lamb yu neex di dox diggante ki nga xam ne ni mooy euh, soq ak Gamou Gueye 2 mais nag comme démb kii di Baye ñëw na si kii dem di may ñi ngi daal di ñëw si ñoom di wax xalaatam mais ñoom ñaar tamit seen xalaat mu teewul kii tam jël na technique bi jox ko Gamou Gueye daal di jël force bi jox ki nga xam ne mooy Sokh waaw loolu mooy li nga xam ne ni moom la bàyyi Ngagne waxoon démb Baye Ndewane bu boole mbooloo tey moom la wax moom jàpp ne force bi Sokh moo ko yore technique bi gàmmu gi mais dama leen di yokkalaat dara rek xam naa ñoo mëpp xam-xam waaye li ma xam mooy ñaari mbër yi bu dee soq la am na bëri wala moom damaa bëgg ñu bàyyi ci xel bu baax a baax gàmmu gi itam bu ñu ko xool ak corpulence am na amul force waxu njuum demal na fa am mbër mu am force la dafa fekk nag bind yi du benn waaye li am solo mooy dimanche si kàttanu yàlla lépp dana feeñ bu ñu demee arène nationale samedi tam Babacar kii di Bébé Diène a jàkkaarloo ak. kii di Fourière mm-hmm. mu doon tam combat boo xam mm-hmm. di xale boo xam ne waa Grand am mm-hmm. bi ah jàppal ne kon ñu nga ca yoon wa mais dafa am adversaire boo xam ne adversaire de taille la muy Bébé parce que ñu bëree bëri sax dañ jàpp ne carrière dafa xaw a yéex parce que xëy na amul adversaire des fois am problème boobu waaye nag daa mel ni kon save location la wax ndax dimanche am na wala boog samedi am na combat ak boor production muy làmb xam ne itam vraiment samedi xam naa ne ku dem arène moom ah da gis bu soobee suñu borom bëri ndax Bébé Diène bërekat la Fourrière itam ku mën a bëri la mhm. waaw. ba Pape nga ñu jeexal ak lutte simple bi nga xam ne tey euh, fële ca Ndiaffate am na gala bu ñu fa tëgg mu war a tàmbali tey mise bi daal nekk 1 million ñu dem tamit fële ca Fimela le 11 ba le 14 ñu teg fa 21 ba ak li nga xam mu nekk tam baax mise yu am solo ci moom mu ngi dox di dem yoonam macha allah parce boo xoolee chaque weekend di dégg ay millions dégg ay nag mel ni kon daal entre Fimela ak Ndiaffate ak dëkk yu mel ni ki noonu daal mbëri simple yi kon ku yeboon rek nga tooyal sa ngemb taal sa oto te wutali fi te xam ne boo fa demee mën ngaa naru daal ndax nag teg nañ fa lu am am <laughs> waaw nga ci loolu la ñuy tàggoo ñi nga xam ne ni ñooy suivre Leewtoo TV di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di leen ziar si àjjuma ji di sàkku ñaan ci yéen di leen ñaanal gudd fan ak wér di ñaan yàlla jàngoro bi lëmbee àdduna yàlla teggil ñu ko ci nu mu gën a gaawee di ñaan yàlla tamit jàmm sax ci Sénégal ak lu ko wër di ñaanal képp koo xam ne rek yaa ngi bëgg Leewtoo TV muy mbokk di xarit di am di jàmmal ñëpp baamutal macha allah Aïssa amin la ñuy wax ñaan yàlla na ko yàlla nangu mm. parce que feebar moom li ma si wax rek si ni moo doomu aadama ànd fekk ñu ngi dund ne si àddina da yàlla da koy xel di wàccee mm. mais yàlla nañu yàlla dimbali ba saa yu wàccee rek ñu am lu ko mën a fànq mm. ba du def lu ëpp ndax nag faatu moom ci doomu aadama yàllaa ko def day am ku nekk nag am na lu yaa ngi dégg ku ne am na ñoo xam ne nii force maanaam ku ne daal am na lu la war a yóbbu mais tamit di rafetlu li nga xam ne nii moom la xalif général bi def bi jaarale ko ci ki nga xam ne nii mooy porte parole bi sëñ Bass muy sëñ Mountakha mel ni kon réew mi maanaam bu ñu tegloo te tegu fi ñu war a tegu am nañ ay kilifa moo xam ka ca tuubaal ka ca Tiwaawan ñi ca jàngu baak yoo ak fépp a ci yem mais la am solo nag nañu gën a joxewaat cër bi gën a nangoo am kilifa Aïssatou Faye kilifa dafa am solo waaye ñoom ni ñoom ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu ay kilifa ñoom yàlla daf leen fee tegul ngir ñuy contester Macky Sall wala Idrissa Seck wala Karim Wade ñoom ñëpp seen njaboot lañu la ñu def la ñuy def tamit dañ koy def ngir askan wépp lañ ñu digal te lislaam yàgg ñu koo digal nañ ca continuer muy set bi ñëpp jàmm di wax bi ñu mu dal yàlla na leen yàlla yëkkatee jàmm ñi nga xam ne dalagu leen yàlla bu mu yegsi ñoom barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ñun ay jullit lañ te Sénégal gii ñu ne itam bu am donte pétrole yooyu amu fi waaye am na loo xam ne ni bëriwul mu am kon yàlla nañu yàlla gën a aar di nuyu ñëpp ñu ñuy suivre ña nekk Italie yàlla leen ci yàlla muccal ca ñamu dalagul ñëpp ah ñamu dal yàlla na ñu wér ñoom tuuti yaay Sarr ñu ngi Espagne ñii ñoom Mamadou Guèye ñoom ku ci ne yaa nga fen ñoom Abdoulaye Mbaye ñoom Ramos Ndiaye fu ne sénégalais nga fa di daan sa doole xam nga kon ñu ngi ñaanal yàlla yal na leen yàlla muccal Aïssatou Faye di nuyu képp ku nga xam ne yaa ngi ñuy suivre waaye sama tey bi du ma ko fàtte rim tapitir maa ngi koy bëggee bu baax a baax di nuyu tamit Saliou Khoule borom Zik FM waaw